ci ndigalu Cheikh Makhtar Seck xalifa Cheikh Déthié Law yal na fi yàgg te wér ak njabootu Cheikh Déthié Law radiyallahu anhu faske nañu alxames juróom-benni fan ci mois de octobre Louga FM 88 point 7 seen mbokk seen xarit seen soppe Mbaye Ndiaye bu Mbadiar dina dalal délégation boo xam ne dana bàyyi ko ci nguraan ci ndigalu xalifa bi ñu waxtaane dund ak liggéey sunu maam Cheikh Déthié Law radiyallahu anhu doon kenn ci kër Cheikh na Sadbu waaye doon ci kenn ci kër Cheikh Abdou Qadir Jeylaani Cheikh Dey Calaw bu Nguraan eh, daañ leen waxtaan jaar-jaaram ak liggéeyam waaye itam liggéey bu rëy bi nga xamee Cheikh Makhtar Seck fas kii na ko def mooy teen bi nga xamee suñ maam Cheikh Dey Calaw radiyallahu anhu foofu la ko Cheikh na Cheikh Sadbu feeñu woon def ci moom lu rëy loo xam ne doomu aadama ay million million yi doomu aadama topp nañ Cheikh Dey Calaw bi fi nekkee ba ba nim fi bàyyi ko bàyyi fi sunu maam ju tedd ja Cheikh Alioune Seck tabarakallahu jaar ci sunu maam yu tedd yi fi jaar ba egg ci Cheikh Makhtar loolu itam Louga FM 88 ba fas ne na ba ñëpp xam ko numéro téléphone bi mooy 33 967 43 00 numéro fréquence bi mooy 88. point 7 waxtaan wi itam incha allah da ngeen ci ànd ak Mbadiar TV Mbadiar TV Mbadiar TV itam ku xam ne seen mbokk Mbaye Ndiaye Mbadiar bii moo ko taxawal kon képp koo xam ne yaa ngi jullit nga ak foo mënti nekk ñu ngi la yëgal ne la alxames le 6 octobre 19h30 maanaam euh, bu jënt bi soo buñ demee ba 19h30 muy 7h30 allah ba. vingt et une heures numéro bi ngeen di woote mooy 33 967 43 00 nuy ñaan itam képp ku dugg nga gàttal te bul di partagé woote ba pare jox sa morom.